maat ko ba mu gën a rafet gën a nooy gën a kii ah bu ñu la ko bàccee ëllëg problème la <laughs> moo tax da ngay laam ce que ñoom est-ce que ça maa ngi tuub est <laughs> est-ce que ça va Samba <laughs> waaw situation man nag dama koy jàngat mhm. à deux niveaux d'abord euh, balaa may dugg ci question de fonds bi dafa am benn mbir moo xam ne tey dama ko dama toog seen assemblée ma rus trop. Hmm. am gàcce li tax ma rus am gàcce mooy man dama nekk quelqu'un boo xam ne man dama yàgg a défendre jigéen man dama ko yàgg a défendre bi ñuy wax naan ay lu tax président Bassirou Diomaye fay falul ay ministres yu bëri yu jigéen. Hmm. à l'époque bokkoon naa ci ñi doon plaider ci favoru jigéen ñi mais tey dama seet assemblée ñi fa waxoon ñaaw yëpp. ay jigéen ay jigéen lañ. ñi fa nekk di daggaate boo jëlee kàddu ay jigéen lañ mm. ñi fa nekk di wax wax yu woyadi wax yu woyadi yu ñàkk teggin mm. ay jigéen lañ après da ngay toog ba nga ne mais man xeex bi may xeexal jigéen ñi bu fekkee ne jigéen yi dañuy jël responsabilité dem di taxaw taxawaay bi est-ce que jar na ko mm. loolu nga est-ce que jar na ko parce de plus en plus dañuy wax ne nañu def politique d' fexe ba jigéen ñi ñu leen di jox poste de responsabilité. Mhm. mais li am assemblée nii est ce que dalal na xel ñi nga xam ne ñoom ñooy xeex cause boobu. Ah parce que li fa am tey yëpp ci ay ruube ci ay waxu ñàkk teggin ci ay wax yoo xam ne waxuma jigéen de mais jullit ci boppam. Mhm. waru ko génne ci gémmiñam ñoom ñoo fa nekk di ko fa génne. beneen bi si teglu boo déggee seen wax. ñoom jigéen ñi nekk assemblée. Mm-hmm. duñ ko teg ci xam-xam duñ ko teg ci loo xam ne information bu dem gëstu la ba mu leer leen mm-hmm. ñoom daal dafa mel dañ leen yebal ne leen benn mission ngeen am fexe leen ba dép euh, député yi nekk ci opposi enfin député yi nekk ay coalition Yewwi mm-hmm. buñ fi wax buñ fi am jàmm man loolu moo ma métti rôle bi ñuy joué loo jigéen ñi. Mm-hmm. ñu koy accepter di ko jouer assemblée nationale. c'est ça qui m'a fait très mal parce que dama ne fii ñu toll nii ak ni ñuy xeexalee jigéen ñi jigéen ñi nekk assemblée tey waroon nañ ñu yokk courage ci seen taxawaay. Mm-hmm. bañ ne ñunkat li ñuy wax ne jigéen ñi dañ leen war a responsabilité responsabiliser ñun ñu ngi am dëgg ndax jigéen ñi nekk assemblée taxawee nañ ko. waxee nañ ko mais malheureusement malheureusement et puis ce li ma gën a li ma li ma gën a yéem am na ci député bu nekk APR di jigéen mhm. dafa dem ba ne budget bi ñu voté moom la Bassirou Diomaye fay président de la République di dundee di ci dundee ñaari soxnaam ba pare Ousmane Sonko ñëwit di ci dund di ci dund ak ñaari soxnaam mhm. léegi ñoom nee nañ danañu def proposition de loi boo xam ne. léegi hmm. ku amati ñaari soxna. Hmm. benn soxna bi rek la ñuy jël en charge. xoolal wax jooju en fait man dama am gàcce ci loolu quoi. Hmm. te loolu sa doit être l'affaire des femmes parce que en ni mu amee ay jigéen yu baax yuy xeex guddeeg bëccëg di xeex pour que ñu jox véritablement jigéen place am ci société bi. na jigéen yooyu di xeex xam ne am na ñoo xam ne ñu ngi leen di yàqal. ñu am sañ-sañi nag toog ci pénc mi wax ak ñoom ne leen kat saa yu ñu gasee ngeen fuul parce que li li ma gis jigéen ñi di def nii tey tey tey tey tey man bu fekkoon ne man maa ngi ci woon combat bi à fond danaa xaw a delluwaat gannaaw parce que danaa ne est-ce que man mopp ma plaider tey jigéen ñi. ba ñu jël post de responsabilité. Mm. est que du ñu taxawee taxawaay yi jigéen ñi di taxaw assemblée nationale. Mm. ensuite na nga xool suñu société bi ci at yi yëpp ñu génn fu ay góoru caay-caay namee def ñaawteef. Mm-hmm. ab jigéen la ñuy jël yebal ko. pour mu def loolu pour mu def loolu. mais loolu il faut que jigéen ñu ñoom it ñu def ko seen pootum biir. fexe nag ba xool ñi nga xam ne ñoom ñooy yàq ñoom parce que li ñii député yi nekk assemblée yu jigéen yooyu li ñu def tey dañu yàq combat yoo xam ne ay jigéen yu am xam-xam am am am dignité am valeur di ko xeex xeex boobu la ñu yàq tey parce que ñun suñu société buñ ne jigéen li ñuy njëkk a wax mooy ca worma ga ca kersa ga mm-hmm. ca yaru ga mais ñi ma gis tey ñu taxaw ci assemblée nationale man bu ma nekkoon seen mbokk. te war a yar njaboot. wala ñu nekk samay rakk wala ñu nekk samay mag wala ñu nekk samay doom. Mhm. danaa am gàcce trop. affaire de gangster dëgg lañ doon def quoi affaire de gangster <laughs> parce que xam nañ ne euh, Sénégal ñu dañoo baaxoo. Mhm. même xuloog jigéen sax bu ñu la fekkee ngay xuloog jigéen dañ naan la déedéet lii du sa cër. Mhm. ci loolu nag la jigéen ñii di abusé. di def yoo xam ne man man wax dëgg fa yàlla dama togg bu si ma rus quoi ma rus loolu laa gis tey assemblée tey dañ leen ko defloo. te malheureusement ki leen koy defloo mu nga fële Maroc toog du mos a yónni soxnaam muy def loolu boo amee doom bu jigéen du mos a yónni doomam muy def loolu député laa député laa xëy na yàlla dogal na ci sa nguur laa faloo député. Mm-hmm. mais amul dara loo xam ne man danaa la ko toppee ba war a mën a jël sama worma sama dignité di ko jëndee ak leneen. Hmm. te malheureusement suñu député yu doon wax tey comprendre uñ fi Sénégal tollu tey. Hmm. loolu c'était un peu le euh, li ma jot a def remarque. <laughs> deuxième chose tey li xew assemblée. Hmm. dafa jox dëgg ñu doon wax yépp ne assemblée bi amul beneen pexe lu dul tas. parce que fii maag fii maag jante waxta wax nañ ci. Mm-hmm. mu ne moom de bu assemblée bu bu député yi jouer seen role de député. Mm-hmm. moom jàpp na ne war nañ mën a bàyyi assemblée bi mu continuer liggéeyam. même man it xalaat boobu laa ma. voilà mën na ko député yi ma gis. Mm-hmm. ci waa Benno Bokk Yaakaar parewuñ pour doxalee yow ni nga xalaate man dama jàpp dama gis nga euh, assemblée bi. bañ koy doog a fal bañ koy doog fal laa ne leen faluñ ay député ay ruubekat lañ fal ay saboteur lañ fal xamuñu lan mooy règlement intérieur yi assemblée xamuñu lan mooy taxawaayu député seen yoon nekku ci xam lan lañ leen sant ñëw leen fexe leen ba député Yewwi Askan Wàllu ak taxaw bu ñu yegsee assemblée bu leen may bu leen leen may jàmm mm-hmm. parce que jamono jooju coalition yooyu ñoo amoon mm-hmm. Mm-hmm. te lépp nag lépp nag lépp nag la ko wundu mooy Ousmane Sonko mi nekkoon ci gannaaw. Mm-hmm. Mm-hmm. comme ñu jotandi ci usmaan Sonko ñu ne lépp lu bokk ci Ousmane Sonko bu ñëwee assemblée bu leen leen may jàmm ndax li ñuy wax baax na ndax li ñuy wax baaxul seen yoon nekku ci sabote leen lu ngeen xalaat ci lu ñaaw. wax leen ko ah, moo tax man mosuma leen considérer eh, comme ay député man dama leen considérer comme ay ruubekat <laughs> am na ci nag ay am na ci nag ay député yoo xam ne seen taxawaay. Mm-hmm. am naa ci gàcce parce que ku ci mel ni Abdoulaye Wilane ak parcours parce que parti socialiste ñu bëgg ko ñu bañ ko foo tuddee un élément du parti socialiste ñu ne la ah ñooñu de ñu am poli ñu am politique lañ ñooñu ay vrai républicain lañ mais Abdoulaye Wilane tey dégg naa ko muy def rime mel ni rappeur naan vous jouez à la ruse ah, la ruse xawma lan aiguise s'amuse ah, mais wax wax boo xam ne quand euh, man damay toog ba si ak ma ne euh, nguur nguur bu la magee. Mhm. nguur il faut nga mag ko man damay toog ba si ak ma ma ma man ban doom aadama si àdduna fii ci àdduna man moo may jaral man ma jël sama dignité. Mhm. man ma jël samay principe ma renoncer ko pour le plaisir de benn nit. man gisuma ko ci àdduna sama waajur moo ko mën a am si man samay waajur mais tey gis naa ñoo xam ne dama leen nawoon lool mais seen taxawaay tey bu ma demee ba gis benn député amul lu muy wax mu naan leen waaw bu ngeen gisee nanguwu leen voté loi ci affaire yu góor jigéen parce que dafa am lu ngeen dig Mélenchon <laughs> loolu waxi dof la ne waaw seen train de vie da ngeen ne woon da ngeen koy wàññi loolu waxi dof la parce que quand même Macky Sall ba mu fi jógee yàggul. mu teg ci ne insécurité bi dangeen ko war a régler mais gis nga le problème de l' insécurité bu amee tey Sénégal insécurité à l' état actuel. ñoom ñooy à quatre vingt dix neuf pour cent responsable de situation. insécurité bi am foofu. ñoo fi recruter ay nervi ñoo fi dugal ay. ngànnaay ay nit di faatu kenn du ko xool. waaw. ay nit di faatu ñu jàpp ne loolu lu normal la. Mhm. ay fàq maan nga jox leen gànnaay. waaw ana ñi nga xam ne. mais mais ah. tey. ñi nga xam ne am na rappeur boo xam ne ci wet woowu mujj nañ ko jàpp. mais ne mi ngi wax naan diw moo ma jox fetal. mais dama lay wax xale yi ñu doon gis ñu yéeg ci pick-up. waaw yor seen i ngànnaay. Mhm. te yow lan moo ma leer. Mhm. yow lan moo la leer. lan moo leer saa wolof ne ñooñu ba ñu paree ca mission ba. nangu nañ see delloowuñ de 45 mais yow kan mooy kan ngay jox harmonie muy nga ñëw naan ko kaay mu la koy indil mais gars yi dañuy ay xale xale nga jël ay jeunes jox leen ngànnaay tàmmal leen fu ñu wàccee def ñaawteef bu ñu ñëwee balaa ñoo ñibbi seen kër nga konte xaalis bu weex tàll ne ko buxeet jox leen hmm. nga xëy yàlla jële la foofu xale yooyu noonu noonu nga jàngaloon loolu xale yooyu est-ce que ñun sénégalais yi lijjanti nañ ñooñu fan lañ nekk ak nan la ñuy dundee instant non marché xam nga tasub ensemble kii bi nu mu tuddati euh, as euh, non conseil économique sociale environnemental mm, ka